yasalunaka bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu rajo seen jaataay wi mu tuddee ni daa atu rahmaan li ahlil iman ngeen koy am alxames bu jot àjjuma jot ci waxtu wi dellu si na ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw lañ sant yàlla subhaanahu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jéggul soxna yeeg sëriñ si ñoo ngi woon démb ci sunu jotaay bu njëkk ci woote juróom fukk ak ñaar ci laaya yi fanweer ak ñeent fanweer ak juróom ca suratu tawba di jàngale araamal gu borom bi subhaanahu wa araamal na ko lekk àll nit ñi ci ay tappale yàlla dafa tere kuy lekk àll nit ñi ci tappale tappale yoo mën a jaar ba lekk àll nit ñi rek daganut tey war a nekk su ñaarlu lu jataay waaye nekk Euh, mott lépp wala sof ci fi bind bi yemoon ndax noo ngi tolloon ci subhaanahu wa wax wa yasudduuna an sabilillah waaw lekk àll ñu ci ay tappale ba pare gàllankoor yoonu yàlla wi gàllankoor yoonu yàlla wi ba nga xam ni li jëm ci wàllu projet yuy jariñ mbooloo mi yépp dañ koy gàllankoor te penc bi dafa am ay projet yoo xam ne mbooloom mi yépp lay jariñ loolu day dugg fi sabilillah loo xam ne bu ci xeet wi jotoon mu amal leen njëriñ lool kenn jël ko sànk ko làqi ko walla mu lekk ko su ko defee yooya war na dem en yooya war na dem fi du ca àgg ñépp waroon koo bokk kenn akimoo ko waaw yàlla nee na loolu dafa xaraam bu ko kenn def bu kenn jël lu ñépp bokk nga lekk ko yow ndax lekk gi nga koy lekk day gàllankoor fam war na àgg du fa àgg fa war na àgg du fa àgg nanu bàyyi mu àgg fa borom bi subhaanahu wa taala teg ca ne wallazina yaknizuuna adh-dhahab wal fidda wala yunfiquuna fi sabilillah ba laay ba laay jeex nee na dafa am ñoo xam ne dañuy rënk or rënk ci ñi xam janax rënk ci ñi xam janax xam kaña mooy denc loo munta lekk mooy rënk denc loo munta lekk yàlla nee na ñi koy def mu ngi leen di yëgal lu leen di dal ëllëg cëy waaw denc loo munta lekk loolu mbokk yi beneen taxawaay la beneen déclaration la beneen yëgla la bu jóge men lay taala jëm ci jaamam yi nga xam ne ñoo ko gëm di leen xamal ak di leen moytuloo boo duñ dugg ci lu mel ni lii nga xam ne moom la wax ne al ahbaaru wa ñoo ko doon def mu bañ ñoom tam ñu dugg foofa ndax al ahbaar wa ruhbaan lañ def bala leen dal dal leen ku ko def la leen dal daf leen daf lay dal yàlla bëgg al mu'minuuna loola bañ leen a dal moo tax mu xamal leen ne ñi nga xam ne dañuy rënk or di rënk xaalis di rënk or di rënk xaalis denc loo mënta lekk mu mbokk yi nag ak bari ak bari ñuy denc luñ munta lekk wala yunfiquuna fi sabilillah te duñu ko génne nit ñi liggéey ci pénc mi am ci bari na koo xam ne lim am da koy def façon liggéey boo xam ne bii moom dong moo ciy jëriñu yàlla bëggewu ko noonu yàlla ki bëgg mooy ki am investis loo xam ne yaag ñu bare koy bokk ne ca lu la yàlla bëgg te boo laajoon ñoom Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ak ak al amir Abdoulaye Lam Sam wala nga laaj sëriñ baabu ñoom ak ñi mel ni ñoom te jàngi woon économie danañu xam ne xaalis bi nekk ci loxol kenn képp muy domp di lekk mu nekk ci loxo ñu bari yaatu moo koy gën a sakkan ci ni mu koy yaakaare moom waaw te ñaare saa boo wutee nu yàlla waxut ñàkk barke walla barke daal di dañ ca la ngay def te ku barke dañ ci li ngay def réer la yomb la yàqu la yomb la réer la yomb la yàqu yomb la waaw moo tax yàlla di tere mu xam ne ñi mu xam le ne ñi nga xam ne dañuy rënk or di rënk xaalis moo xam kaafiruuna lañu moo xam musrikuuna lañu moo xam muslimuuna lañu li ñuy tere lii mbirum économie la te économie amul nationalité ñett ñi ñëpp koo ci xam ne yaa ngi rënk yëgal ne yaa ngi def benn bàkkaaru économie yaa ngi def benn bàkkaaru économie mu jëral la bàkkaaru social waaw bàkkaaru mu jural la social ndax kanzul amwaal maanaam rënk xaalis te xaalis qawaamul amal maanaam liggéey yépp ci xaalis lay sukkandiku ci xaalis lay tëdd ci lay jóg ci lay taxaw bu nit rënkee alal ji ba xaalis bi munta génn pour liggéey ci ko rek kooku sunu borom nee na nee na yonent bi fa bashiruhum bi azabin alim nee leen mbugal mu métteeg leen di xaar mbugalum àdduna te mooy économie ba yàqu mbugalum àllaaxira moom dana ko wax waaw mbugalum adduna nag mooy économie bi yàqu li ngay kopp-koppal yàqu waaw benn mu lakk mbaa mu réer mbaa waay jaar fa jumel ni yow ni ko tépp waaw nga bokk ci ak nit ña yem te ku jàng ni alxuraan di doxe sunu borom day jàngale toujours ne ku am bëgg a lekk bàyyi say bokk sunu borom yàq ko waaw say bokk ree la seetaan la bëri na ci lool waaw asxaabal jannati dégg ngeen ko yaakaar naa ne kon nag fa bashiruhum bi azabin alim hmm? waaw ndax alal jooju ñu rënk ñoom te alal ji nekk ndëgër liggéey alal ji nekk jumtukaayu dund duntukaayu jumtukaayu dund gu neex alal la koy def te bu alal ji génnee ñëpp jot ci ñëpp liggéey ci dana yaatu penc mi commencé naat ñëpp tàmbalee am luñ demee marché te bu ñëpp amee luñ demee marché yëf yi tàmbalee woyof lu am solo la suñu borom wax ci laayam ji ni mu koy waxee saa su nekk wallazina yaknizuna zahab waaw denc rek kenn du ci liggéey denc rek sab xaalis kenn du ci liggéey kon yoonu génne sab xaalis liggéey ci nit ñi liggéey ci yoon woowu itam dafa war a nooy yoon woowu dafa war a nooy sunu borom daal dig ñooñu ay duma dumay àdduna te mooy koom-koom ma yàqu ak dumay ëllëg waaw ndax ku mel nii euh, ku mel nii docteur Aboubacar Jabir al Jazairi day wax ne xad salaka maslakal ahbaari wa ruxbaan mu ne ku mel nii soobu nga yoonu yoonu fóore ya ak kàng ya ca alyahud wa nasaara nee na ay mbooloo it ci pénc mi danañu dugg léeg-léeg ci yoon woowu di jël alal ci seen alali mbooloo loo xam ne ab pàcc la buñ cay dagg forcément yóbbu ci seen kont te nit ki du ko joxe ci co ci teeyug bakkanam waaw mu ne képp koo xam ne kii jaar nga ci yoon woowu jaar nga ci yoonu al ahbaar wa jaar nga ci yoonu al ahbaaru wa ruhbaan moo di domp ci alal li ki nga xam ne moom nga nekkal walla ngay kilifaam dompe ko dompinu dee ma jox nangam walla nangam ngam war di jox ci sa ci sa nangam nga war a jox ci sa revenu tabarkàlla sunu boroom teg ca haza ma kanastum li anfusikum fa suuqoo ma kuntum taknizuun mooy képp koo ci xam ne dencoon nga xaalis boobu ba faatu te nit ña jotuñu ca yow dong yaa ko bëggoon a wéete lekk ko sunu boroom bàyyi ba yomal xiyam mu yebale malaaka ñu jël xaalis boobee soppi ko ay pièces tàngal ko ba tàng walla aw feer tàngal ko ba mu tàng di ko ca ñaas naan ko haasa lii ñu lay ñaase nag maakanastu mooy la nga mooy la nga rënkoon la ngeen rënkoon min anfusikum ngir seen bopp kon nag fa zuuxu mos leen maa kuntum taknizuun la ngeen nekkoon doon ko rënk kon kat ndekete na boobu ci sunu borom def tax na rënk dafa araam mooy deñ ci loo munta lekk nit ñi duñ ci jot doo ko jariñoo xaaj ba tëdd rekk ay ati at di nelaw ngay compter million di compter milliard jamono ba million xewee ngay compter million bi milliard xewee ngay compter milliard waaw allahu akbar mu nga kañ la leen kañ lañ leen di mbugal mbugal googee mbugal googee yowma yuxma alayha fi naari jahannam mooy bis bañ koy bis bañ koy tàngal ba mu tàng jër te sawaraw jahannam te sawaraw jahannam daa mën a tàngal ndax dafa tàng dafa mën a tàngal lool ndax dafa tàng xam naa tayër yi nga xam ne bu ñuy paase xam nañ feeru courant par rapport ak feer yu ñuy tàngal ca sawara feeru courant tàngut ba léegi gën a tàng waxuma laa nag wu te nun wu rekk ëpp nañu wu <laughs> këriñ dong ëpp nañu maa la ko wax fi ne ñuy samp seen ndënd bëgg a nekk candidat deux mille dix neuf koona ci woon tegal sa loxo ñu teg ci feer wi te nga falu boo dawul falu kenn du falu boo naan ko ci ñaas rek tabarkàlla muy tëb waaw waaw yowma yuxma alayha fi naari jahannam fa tukkuwaa biha jibaahum yàlla mu ne bu se bu feer wi tàngee fañ koy njëkk a teg mooy ci jëbi ci jëbi lañ koy njëkk a teg hmm? waaw waaw buñ ko tegee ci jëbi daal koy teg ci faar gi buñ ko tegee ci faar gi teg ko ci ginnaaw gi waaw sunu borom ci jëbi la ñuy tàmbalee teg ci faar gi teg ci ginnaaw gi noonu lañ koy defee naan leen lii mooy la ngeen rënkoon mos leen ko mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla bu nu lii dal ndax alal boo ko magut daf lay mag te mu mag la baaxut ngeen maase baaxut mag ko rek mag ko ba man di ko yónni lu ko mooy mu mag la di la yónni waaw benn ibaara la buñ jële woon ca dëjub sunu mbokk ma sunu xarit ba euh, bugaaloo xaritu euh, ndeysaan ñi daan organiser aj makka ñoom xalifa malik jàlloog ñi mel ni ñoom kon xaalis fexeel ba mag ko di ko yónni fu la neex yónni ko mu dem waaye bu la magee moo lay yónni <laughs> moo la yónni te boo ko yónnee ma bañ ñi seen xaalis mag nag di leen yónni bët bu set mu def loo leen lu defuwut ci xaalis waaw ay giraawaali mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yàlla buñ bokk ci ñooñu kere bi nga xamee ne aay ji wàcc na aay ji wàcc na al muslimuuna ña waroon alayhi salaatu wasalaam hmm? ñoom ñëpp mbir mi dafa réyoon ci ñoom mbir mi daa réyoon ci ñoom lool Omar ibnu Xataab radiallahu taala anhu daat ne maa ngi leen di wutali solution waaw maa ngi leen di wutali solution di soli dàllam sol mantoom bokk jaasim dem ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ngir wutali muslimoone ya solution mu ñëw ne ko yaa nabiyallaahi yaa nabiyallaahi mu ne ko làmb mu ne ko sa àndandoo yëpp sa saxaaba yëpp laay ji tiital na leen yonent bi ne ko inna laaha lam yufridi zaka illa li yutiba ma baqi min amwalikum mu ne ko yàlla li tax mu rëdd azaka du dara lu dul li ngeen dese ci seen loxo nekk lu teey nekk lu lew ngeen mag mu ngoog ngir li des ci seen alal yi ginnaaw bi ngeen fi jóge Omar daa allahu akbar waaw allahu akbar ñaar yooyu sunu borom rëdd mbokk yi bi nit kii dund alal jëm yor sunu borom di ca jël azaka deux virgule cinq pour cent saa bu matee nisaab ak mu jot ak mu jot deux virgule pour cent la sunu borom soxla ci alal ji bi nga fi nekkee ndax lan ndax alal ji teey alal ji lew alal ji toog bu dee miraas mooy boo fi jógee boo fi jógee sunu borom séddaleel la sa alal ñaar yépp nag moo ko def benn yonent defu ko déedéet ab aalim defu ko ab faqih defu ko subhaanahu wa taala moo moo def ñaar yi bi ngay dund ba génne asaka deux virgule cinq pour cent ab liste la indi innama sadaqatu lil fuqara séddaleel ko boppam moom borom bi subhanahu wa bi nga xamee ne faatu jot na ba nga faatu bàyyi fii alal ji sunu borom mu ne yuusikum allahu fi awlaadikum daal ne li zakari mithlu xadil untayeyn mbokk yi nanu seetlu bu baax ñaari ñaari yooyu ñaari atte yooyu te bu ci nekk jëm ci alal bu dee azaka yàllaa ko séddaleel boppam bu dee miraas yàllaa ko séddalal boppam waaw al ustaas Ahmed Dame Ndiaye ab jàngalekat la yàlla na ko yàlla gën a sàmm te nangu kooram day wax ne ndaxte alal dafa jege sentiment nit ki buñ ko bàyyi woon mu séddale azaka léegi tey mu jox ku mu warta jox wala mu xañ ku mu war a ku war a jox mu ne naka noonu miraas tam noonu la miraas toujours ñu waxtaan ci mag soxna si bu dogalee ay santiment mooy tàntay xale yu comme amul kër wala yi xale yu comme amuñu kër wala wala waaw sunu kon ci alal dégg ngeen ko mu séddal ku boppam ca miraas waaye mu séddale ko boppam ca ca azaka waaw fa kabbara omar omar daal ni allahu akbar waaw yonente bi daal di koy wax nag alaa uxbiruka bi xayri ma yaknizul mar'u mu ne ko omar bëgg ngaa xam dëgg dëgg trésor mu ne ko waaw mu ne ko kaay ma xamal la ko ba demee nga xamal ko gaa yi alal dëgg-dëgg mu ne mu ne ko kaay ma xamal la ko mu ne ko luy alal dëgg-dëgg mu ne ko almaratu saaliha jigéen ju baax seet tit almaratu saaliha jabar ju baax hmm? allati ida nadara ilayha sarratu jabar joo xam ne boo ko xoolee rek tabarkalla bég boo ko xoolee bég ci jikkoom ci melokaanam ci soloom ci nàngam boo ko xoolee rek bég bu fekkee nag lu ne lu lu ne lu ne ci sariya nga sol ndax ci wasiyatu Penda Jóob am si tubaab nga ci wax azawju taqi jëkkër joo xam ne luneti sharia la sol luneti lislaam la sol ba li muy gis mooy li yàlla gis li muy gis mooy li alquran gis li muy gis mooy li sharia gis li koy bégloo yooyu lay doon waaw qurrata mu ne jabar jooju saa am amaraha ataat bu ko digalee mu topp ndigal wa isa xaaba anha hafizatu boo absente mu sàmmal la waaw boo absente mu sàmmal la sàmmal la alalam sàmmal ko deram mbokk yi hadis bi ñu waxoon Omar ibnu Xattaab nun ñëpp noo ànd bëgg ko te nu ñëpp ànd bëgg koo jëriñoo yàlla nu ko mën a jëriñoo te day jàngal kon ne rënk kon ndeke amul solo rënk ndax lu waay rënk lum bari bari bari bu la say bokk sangee sàng la jullee la suul la na faxasu nga ca alal ja waaw loo ca préparé wutoon defoo ko ca ba mu war lay fekk foofee kera nga koy ñàkk ndax alal ci ñi gën ñàkk ngor lañu bokk ci penc bi te dàq fee wor wax naa ko ci wenn waxtaan bariwul koo seen ñu koy yóbbu ñu koy yóbbu ca euh, armel ya sëg ya muy tëddi ab otoom yóbbu ko bariwul ndeysaan kuy dem armeli sab oto yóbbu la bariwut de li ëpp ci ñuy dem armeel ya oto bu ñuula leen di yóbbu te dëkk bi ñaare topp gënuñoo soxla oto bu ñuul waaw dëkk bi léeg-léeg ñu ciy dox oto bu ñuul boobu fu ñu taseeg moom rek yaatal ko mu dem kon nag loolu la sunu boroom def ci alal miiraasal ko boppam waaye génneel boppam liste ba nga xam ne mooy ña war a am ñii la ñuy nii lañuy joxe asaka jërë ngeen jëf ci ànd beeg su FM seen rajo yal na la boole sàmm boole nu aar jox jox leen daje incha allah ci ay bés gi di ñëw muy alxames jaat ajjuma ji incha allah yàlla ñu fekk te nu weesu ko yàlla yàlla sàmm leen sàmm nu nangul nu sun koor nangul leen koor gaa ngi dem yàlla ñu fi bàyyi bu dil siwaat yàlla ñu fekkaat yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara kenn àndaloon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu